Euh, ba meeting ba jeexee nit ñi di ñibbi tranquillement dafa am loo xam ne xëy na amoon na fa takk der yi daal di fay ñëw ba xëy na peut am na ñoo xam ne loru nañ ci kenn moo taxaw fii jàkkaarloo ak yéen di mbës euh, am problème mu bët ndax xëy na dafa am loo xam ne sotti nañ ko ci bët yi acca mbës euh, nga expliqué waat internet yi rek fay nan la demee exactement. waaw ah, affaire yi moom dañ ci dañ ciy xuus. Mhm. parce que li may wax rek. ñun ba affaire yi amee. Mhm. dañuy dem tooñuñu xeexlooñu. Mhm. xeexuñu. Mhm. tooñuñu mhm. mais dañoo dem far yàlla ndogal dal ñu si yoon bi man bañ ndogal dalee ci yoon bi dañ ko nangu tamit xam ne mhm. natt ak wërsëg yokkub yàlla la quoi jaamu ko neex la koy sot sa biir ndab nattu alalu julit la tuma alalu góor la waaw dañuy sant rek amaana tey loolu moo gënoon quoi mais tamit di di ñaaxaat jeunes yi quoi dina fii Sénégal fii ñun jàmm rek lañ fi soxla xeexloo ma kenn man mbës personnellement man si liñ ma jot a wax man Cheikh moo ma moo ma woo. Mm-hmm. ne ma dajaleel say booy man bu ma jugee mbooloo ma topp. Mm-hmm. mais daw ma woon pour ay ay manifestation pour xeex. Mm-hmm. daw ma woon pour xam nga. tamit dañoo demoon gunge askan yi rek. parce que man askan bi laay topp. waaw. voilà mi ngi noonu naka la fee demee exactement bés ndax gis nañ ne que meeting ba ña fa nekkoon ñëpp ci journée bi xam nañ ne déroulé na euh, normalement te xëy na problème amu fa coow amu fa mais gis nañ ne que ba ngeen jógee di ñibbi ci la problème yi am naka la fee yi demee exactement. waaw fee ba ñuy dem coté parcelle. Mhm. li ñuy ñibbi boobu gars yi ñu ngi dóor Laka la Mazel. Mm-hmm. ndax ñun ñu ngi ci benn pick boo xam ne foofu lañ nekkoon. Mm-hmm. maa ngi ne sama benn copain alkaali fii la dëkk sax. Mm-hmm. man ak moom sama mbokku mbër la man ak moom ñooy ànd guddeeg bëccëg ak kii. maa ngi koy ne dof ba mu dégg moom ma ne ko nañ ñibbi. nañ dagg action ñibbi quoi. man dafa ko dafa mel ni dama ko sentiroon quoi. mu ne ma noonoo non nañ dem. ba ñuy dugg si côté si kër góor gi la ñu gars yi embuscade foofu commencé dóor ay Laka la Mazel. far yàlla. policier bi xaw ma dafa juum xaw ma lan moo ko dal. Mhm. mu jël balrin laa la dóor ko. Mhm. balrin bi maa ngi si pick bi de. Mhm. mais maa def rétraction prier. si la bal bi daal di dal yaa ma xaar sama benn grand bu ponkal. seede yàlla bal bi si tàng la ko dal affaire bi def pax. mu daanu du direeku. léegi man affaire bi muy exploser. dafa exploser rek. si la kiiwee sama bët yi si la poudre bi kiiwee sama bët yi quoi mm-hmm. après sama bët yi nuux mm-hmm. man tamit ma daanu si laa téye sama bopp mm-hmm. téye sama bët yi quoi jàmbaar laa man ba ma gars yi filmé sax gisuma leen xaw ma leen sax si laa sëgg après si la ma médecin bi tamit daw médecin bu nekk ci hôpital bi si te kër góor gi daw jël foog ma man ak man ak yaa ma xaar kii ñu téye ko man tamit ñu téye ma diri ma ba dugal ma ci hôpital bi ki bal tànk yi man ak moom ñoo nekkandoo hôpital ñu toog foofu noonu kenn laaluñu amul benn jéego bu ci waay dox amul mm-hmm. benn jéego tamit bu ci nit dox ñëw mm-hmm. xamal ni tamit ñun moo ñu moo ñu jël en charge mm-hmm. waaw voilà mi ngi noonu mu mel ni que euh, ba ngeen jógee ci hôpital boobu yamoo leen fa dem ngeen ci beneen hôpital dem nañ Gaspard Camara kenn nangu ñoo laal parce que xamuñu ñoom lan la parce que ñun dañ leen expliqué ne leen fii la ñu jóge woon effectivement Ousmane songo lañ àndaloon waaw mais demuñu woon pour woote violence demuñu woon pour xeex comprendre nga dañoo demoon xam nga Mhm. ànd ak tamit monsieur le maire Barthélémy Dias soutenir leen mhm. Mhm. waaw mais demuñu woon pour histoire demuñu woon pour reyante waaw dañoo demoon pour jàmm rek waaw far yàlla ndogal dal ñu ci ndogal dal kee tamit waaw euh, léegi nan def ba ci hôpital bi ñu daal di leen di jël mun leen faj wala faj ñu leen non ba ñu jógee Gassar Camara kenn nangu ñoo laal lu ñoo jógee foofu noonu demaat beneen hôpital ba demee beneen hôpital bi nag si la laal si la ñu commencé quoi pansement calmant rek lañ ma jox. Mhm. waaw kenn jëluma ci en charge samay mbokk rek ci sonn. Mhm. waaw voilà mi ngi noonu euh, nii nii ñuy waxee ak yow Mbeuss yan problème ngay jànkonteel ci sa vision da ngay gis euh, lu ndaw wala pour nga. pour gis-gis bi day metti affaire bi day day metti affaire bi mhm. damay jékki-jékki rek xam nga ro comme maanaam day mel ni ay rongoñ xam nga. Mm. day jékki-jékki full quoi. ok doo gis normal ma gis bi leeru mm-hmm. su ma gis comme ça gis-gis bi demeewul noonu. quoi waaw day full. d'accord voilà man soxlawu ma leneen man na ma gars yi jàppale rek ma mm-hmm. nekkaat sama activité. parce que man li may wax rek man mbër laa. Mm-hmm. amul fii fenn fooy dox di ma présenter. ba bi amee ñu bëree may woo sama téléphone di jooy. samay fan si club. koo xam ne tamit bu jugee dëkk koy topp. amul fenn fooy dox fii nii di ma présenté waaw jàmbaar yëpp xam nañ ma. Mhm. ku ma xam xamuma ci violence. ma mhm. tax Cheikh ba ma waxee dama ko ne gaañ. Mhm. bu nekkee monsieur le maire amul problème. parce que ñun dañoo soutenir génn. ma génn samay mbooloo. ay nit ñu bëri topp ma. kii du ma bàyyi ma fenn. ay mbooloo topp ma. parce que tamit man daw ma di xeex ak kenn. parce que ñu si bëri maa ngi ciy dégg ay affaires yoo xam ne ay affaires yoo xam ne amul chance quoi ñii naan la ay nervi ngeen. man daw ma di ay nervi man sama askan laay topp ndax su ma amee combat jàmbaar yooyu ñoo may topp. kon xam nga du ma dem di xeexal askan bi di lañ gaañ wala di dem di takk nervi waaw. voilà mi ngi noonu après interview bi nga xam ne defaloon nañ la ko euh, yaa ngi doon jot ay appel wala ñoo xam ne pare woon nañ pour jàppale la. non fa dëgg yàlla moom jotuma ci benn appel. Mhm. benn appel la laa ci dégg. Mhm. waaw benn appel rek. Mhm. muy paap. waaw. léegi yow euh, sànq maa ngi lay dégg nga ne euh, monsieur le maire Barthélémy Dias n'est-ce pas mhm. du moom moo leen yóbbu euh, foofu noonu ca parcelle non parcelle ñun Cheikh lañ àndaloon ak monsieur le maire Cheikh moo ànd ak monsieur le maire man monsieur le ah, maire yow Cheikh moo la boole monsieur le maire man Baobab laa dëkk monsieur le maire ñun ba muy dem mhm. ñun ñoo ànd parce que man booy man maa tax ñu jug booy Grand Dakar yeeg man mhm. maa man maa leen woo booy yëpp man maa leen woo ñu jug dem soutenir monsieur le maire. ak Sonko léegi monsieur le maire woo na leen wala moo am benn acte wax wala yëg na est-ce yëg na sax li nga xam ne moom moo la. non fa dëgg yàlla man moom jotuma benn appel. Mm. dégguma benn appel te man yëg na dëgg yàlla moom. Mm-hmm. dégguma si kenn. Mm-hmm. du Sonko du monsieur le maire. du mm-hmm. kenn nag. waaw. voilà mi ngi noonu léegi ban message ngay lancé pour képp koo xam ne rek pare na pour jàppale la pour nga mën a faju ba delluwaat say activité ah man message bi may lancé rek mooy na ma gars yi teg loxo rek. Mm-hmm. na ma gars yi jàppale quoi. Mm-hmm. man nekkaat samay activité nekk samay besoin waaw mm-hmm. ah, man mbër laa ñëpp xam nañ ma amul fenn fooy dox di ma présenté waaw man instant yi nii nii nii nii xam nga dama nekkoon sax dama nekkoon sax si signé si si si si signé signé contrat waaw ah, signature contrat quoi laa nekkoon mais xam nga jaam ak pexam yàlla ak dogalam. chaque jour dañuy nangu rek dañuy jàpp nattu xam nga. Mhm. mooy alal jullit quoi. Mhm. waaw tuma alalu gor la ragaluñu tuma yi quoi. mais xam nga nit fu nekk la ñuy wooyee. Mhm. waaw man nit daf may woo sax ne ma ay affaire ay affaire euh, nervi ma ne la gaañ. bu mu dégg ma bu ma woowaat téléphone du benn yoon du ñaar yoon. waaw kon dama bëgg a xamal presse bi quoi ñun nekkuñu ay nervi. demuñu di xeexal booy Mhm. voilà léegi euh, yow léegi nan ngay dundee situation bi parce que ku ne xam ne ne euh, metti na loolu euh, nan nga koy dundee. waaw ah, situation bi metti na. Mhm. Mhm. metti na parce que xam nga tamit nga nekk booy dëkk yaakaar la. tamit xam nga dëkk yaakaar la boo wootee ñëpp wuyu la. yombul quoi. amaana lii nattu rek loolu laay wax booy bi. ñun affaire bi amee samay mbokk ñoo si sonn. ay jooy ñoo xam ne xam nga ñi ay pikir lañ dëkk. comme dañoo dégg affaire bi nu mu demee. comprendre nga ñii tamit di ma conseiller man mosuma ay politique nekkul sama objection mhm. nit daf may woo sax ne ma booy xam naa yaay boroom dëkk bi mhm. indil ma ay personnes léegi yow lan moo la fa yóbbu woon bu dee politique euh, yóbbu la noonu non man monsieur le maire moo ma fa yóbbu Barthélémy Dias ak Sonko man moo tax ma dagg sama yiite mhm. dagg sama yiite dem niir leen te man mbooloo ñoo ma topp mbooloo bi ma topp sax man damaa jug mbooloo topp ma ma dem mais daw ma pour woote violence daw ma woon pour woote xeex mhm. damaa dem discours Sonko déglu ko àndalaat ak monsieur le maire mhm. gunge Sonko ñu ñibbi mhm. foofu lañ affaire bi dalee voilà mi ngi noonu aco mbës euh, léegi bu fekkee amoo aco vas-y Ndeye voilà léegi na lan ngay wax sa moromu jeunes yi parce que li la dal médecin la te am nañ jenn ñoo xam ne itamit euh, li ni mel moo leen dal aussi waa li may wax mbokk jeunes yi mooy ñun uh-huh. ñun askan bi ñun ñoo fi dëkk quoi uh-huh. ñun benn la Sénégal kenn mun koo xar ñaar maanaam nañu isaan suñu bopp quoi di bàyyi ay policiers yi tamit di uh-huh. bàyyi ay bal ñuy dóor doomu aadama yi tamit xam nga ñun jeunesse bi tamit boo tiimee sa dëkk jeune jeune réew rey ko amaana tamit da ngay xoolaat ëllëg quoi yow mun nga am njaboot tamit nañu isaan suñu bopp xam ne lii nii tamit ñun ñoo fi dëkk ñun ñu ko mën a yàq ñu ko mën a saltel mm-hmm. waaw di ñaaxaat président waaw mu woote jàmm quoi mu bàyyi xam nga Ousmane Sonko su ma sañoon gars yi xam nga mm-hmm. defal ko jàmm quoi mm-hmm. defal ko jàmm ak monsieur le maire Barthélémy Dias parce que xam nga ñooñu tamit bu ñu jógee mbooloo moo leen topp dëkk moo leen topp te amaana booy yi ma gis nii dañoo dëgër bopp barki ji Faalu booy ma gis nii dañoo dëgër bopp te parewuñu pour bàyyi kon nañuy def jàmm fii nii tamit di ñaanal jelmaan yi monsieur le maire mu gracier jelmaan yi quoi mm-hmm. Mm-hmm. mu bàyyi booy jeel yi mm-hmm. mu koy lancer à passage quoi mu xam nga jàppale ñu ci jelmaan yi quoi mu bàyyi booy may leen chance quoi man loolu rek laa koy ñaaxaat waaw voilà mi ngi noonu Atia Mbës léegi euh, voilà da nga koy wax mu tàggoo wala. bien sûr non léegi na wax euh, ñi nga xam ne maanaam na joxe numéro mhm. wala mu wax ñi nga xam ne jàpp jàpp nga ne dañ laa war a ñëw jàppale. Mhm. war laa ñëw taxaw nga joxe wala sa numéro. man monsieur le maire laay woo Barthélémy Dias ak mhm. Sonko. waaw nañ ma ñëw taxaw jàppale ma quoi soxla naa jàppale waa ak bonne volonté yi. waaw xeebuñu kenn nag. ku ñëw jàpp rek. waaw suñ borom xam nga. ku ñu ñëw jàpp rek te yàlla tax waaw ñun loolu la ñuy saaku waaw xam nga sama numéro téléphone 78 la 251 72 92 waaw mhm. di ñaanal monsieur le euh, président mhm. mu bàyyi jëlmaa ni quoi mu graissé leen te yàlla mhm. tax quoi ndax booy sonn nañ fii Sénégal jàmbaar yi amuñu liggéey amuñu liggéey barki Serigne Saliou amuñu liggéey ñu nga xam ne ñun ay mbër lañ dañuy nekk ci arène bi di di dóorante gis dañuy fogoon xam nga amaana ñun mënuñu gantal doomu aadama mm-hmm. Mm-hmm. mais tamit booy fii ni sonn booy da nga imaginer nga xëy sa mm-hmm. yaay gaz mënoo ko jëndal gaz tamit xam nga ngay liggéey ngay reyante xam nga tamit ñuy reyante maçon bi di tabax gaale mënul am gaale tamit nañu waxante dëgg quoi booy sonn nañ booy du kesoo da coobare ñàkku fayda booy ñàkkuñu fayda booy jelmaani ne leen may chance te yàlla tax quoi ndax xam naa man lu fi lu jël ba di saf quoi. dëgg la waaw. mais sànq dama dégg bala ngaa tàggoo bala ngaa bala ngaa dem dama dégg sànq ne mbër nga te ñu ngi dégg à chaque fois ñu dégg ne nerf bi. mbër yi mm-hmm. ñoo leen di recruter mbër yi ñoo leen def li yow loolu boo ko déggee nan la lay def en tant que. waaw xam nga la man loolu su ba mu ko déggee carrément man loolu xaw naa cee xaw naa cee mer quoi. parce que dama jàpp ni sama ñeen mbokk mbër yi. Mm-hmm. ñoom amuñu xel quoi. Mm. parce que boo jugee li lay topp soo xoolee booy ndaw yi booy ñoo lay daggal billet fu mu seeree ñoo lay mm-hmm. defaral t-shirt fu mu seeree mm-hmm. ñooy taxaw si tali bi rayante mm-hmm. ngir nga am sa combat nu mu munti mel bu leen tey jii nii bu leen dee bu bu leen tey maanaam tey ndam danga koy am ñoom ñu ñoom ñu dee sax ñoom dañ koy jaral quoi kon tey jii nañu isaan suñu bopp xam ne ñun ay mbër lañ nañ topp suñu xam nga nañ topp suñu carrière topp suñu yoon tamit bàyyi askan bi ndax bu ñu jugee askan bi moo ñuy topp man de wax fa dëgg yàlla moom. Mhm. sama askan du ma xeex ak sama askan. Mhm. ndax seeku ma ak sama askan quoi du ma xeex ak kenn. Mhm. waaw man booy laa man askan bi laay topp topp ma keneen. waaw parce que man su ma jugee ñoom ñoo may topp kon duma taxaw di reyante di nekk nervi mel ni ku dof. ay simple trente mille simple cinquante mille yow yaa ko mag. loolu amaana yow sa ngor bu la ko sa ngor sa ngor mun na loxo ko bañ a may quoi. tamit xam nga nga benn xale dóor ko mu dee. loolu rafetul quoi. Mm-hmm. waaw. voilà mi ngi noonu nag lay uh, jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay bu baax a mm-hmm. di leen jaajëfal bu baax di leen ne kontaan bu baax a baax. Mm-hmm. waaw merci seen fay quoi. waaw affaire yi moom doy na waar trop. d' accord yàlla baax na incha allah yàlla baax na incha allah. Mm-hmm. maa ngi koy uh, jaajëfal bu baax a baax moom bés ak ki nga xam ne moom la àndal mu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax dégg li nga baax baax li nga xam ne uh, loolu la daal di wax. Mm-hmm. muy kàddu yi nga xam ne am na solo kon ni nga xam ñoo ko mën a jàppale. Uh, mm-hmm. nañ ko jàppale. woote ko ci numéro yi nga xam ne numéro bi nga xam ne sànq daal dina koy joxe wala ku woote dem ci ñun incha allah dinañ la jox numéro ko ci mën a jàppale rek nga daal di koy jàppale. la nga xam day am solo sax ndeya doguma la parce que mm-hmm. déjà bañ koo defalee li nga xam ne moom mooy interview mm-hmm. déjà dégg nga ne benn appel la jot <coughs> te kooku ba mu ko woowee appel bi amul suivi kon donc euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy bon volonté yi mhm. une fois ñu jot message am nañ ko jàppale bu baax a baax ndax comme ni mu ko waxee mhm. ndaw la xale la aussi te am nañu yaakaar ci moom am na mhm. loo xam ne aussi moo nekk ci kanamam euh, te moom il a été clair nee na violence du dara yóbbu ko fa dafa defoon juste rek euh, participer ci li nga xam ne moom mooy meeting bi waaye tamit gunge ki nga xam ne moom mooy Euh, Barthélemy Diaz kon day nekk loo xam ne euh, nañ ko taxaw rek euh, pour mu mën a faju bu baax a baax mën a dellu ci ay activités am effectivement mi noonu nag comme buñ ci jógee ci li ni mel dañuy daal di continuer bu baax a baax li nga xam ne moom mooy suñu actualité ci kanam tuuti rek maamu dinañu daal di rejoindre ci biir plateau ñu daal di waxtaanee li nga xam ne moom mooy ci actualité mhm. comme sànq dima ko xëy Fatima. Mhm. li nga xam ne mooy yeewi askan wi mhm. ñoom daal di nañuy président Macky Sall. Mhm. wax invité na leen ngir ñu ñëw participer ci feetu indépendance bi. effectivement gis nañu waaye Yewwi Askan mhm. li nga maanaam dañoo bi de ma laa jox rek di bàyyi Mamour mu mhm. daal di um, ñoon teg ñu ñuy uh, bàyyi xel. wala ba léegi nañ continuer uh, le temps que uh, ñu koy daal di cadrer. Fatima nan nga jàngatee mbir de refuse bi nga xam ne. Yewwi Askan Wi daal di lañ koy def. voilà mi ngi noonu refus bi niñ ko jàngee mooy maanaam am nga nit ku ne moom. Mm-hmm. invitation déjà dañ la koy jox. mais c'est pas forcé que jox nañ la ko rek après yow da ngay daal di dem wuy ji ko. Mm-hmm. ndax li am der dernièrement fii ci réew mi ku ne xam na ne maanaam ku ne teg na ci sa bët. Mm-hmm. Euh, ñoom li ñu amal li ñu wala kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ne du ñu du ñu du ñu dem. Euh, di féete li nga xam ne moom mooy indépendance. ci kaw koo xam ne xëy na peut gis nañ ne que euh, joxu leen li nga xam ne moom mooy indépendance. kon bu ñu demee foofu daal di participer ci fête bi day nekk loo xam ne peut-être mën nañ ko tuddee hypocrisie wala xëy na peut-être euh, mm-hmm. naa fekk parce que da ngay dem di wuy ji loo xam ne la ngay wuy ji peut-être yeggul sa xol mm-hmm. ndax nee nga li tax ngay wuy ji yow am amoo ko muy maanaam indépendance ci sa réew mm-hmm. kon day nekk loolu xëy na peut-être euh, am nañ raison foofu bu baax a baax ndax defe naa ne euh, lu waaye di wuyoo da koy njuru te nit ki ci lépp luñ lay woo